waaw merci beaucoup donc tey ñu ngi fi recevoir euh, rencontre bu am solo boo xamante ne tey waa IWA Sénégal ak waa ABS bi nga xam sunu xarit sunu doomu nday Ali Sow Ndiaye moo ko jiite ñoo ñëw tey fii si centre AJWP au niveau de Wakhinane ci sunu commune di commune Pikine Est donc euh, pour ñëw waxtaanee fi lépp lu jëm ci wàllu métital ak sonal jigéen ñi ndax jigéen moom comme ni ko wolof di waxee mooy jigéen mooy ki yàlla tànn Euh, jiital ko si àdduna donc ñëpp war ko sàmm ñëpp war ko yiir ñëpp war ko aar ñu gis ne jamono ji ñu ngi gis ay métital di gis yu jëf yu ñaaw yoo xam ne ñu ngi koy def jëmee ci jigéen ñun ñëpp nag ñu war a ànd xeex ko autorités yi war si jiitu muy état central mais aussi autorités locales yi ñun ñëpp ñu boole suñu doole pour mun a fexe aar suñuy doom aar suñuy jigéen aar suñu yaay ba benn métit ba benn fitna bañ a dal jóg di dal seen kaw kenn bañ leen faat kenn bañ leen a sàkku kenn bañ leen a sonal kenn bañ leen a vraiment def loo xam ne nii dina am lu muy yàq seen àdduna ndax jigéen mooy ki ëmb àdduna te yaakaar naa ne bu baaxee li wolof di wax société bi yëpp baax donc war nañ fexe def ay pexe ba gunge leen ba ñu mën a jouer role bi ñuy xaar. waaw bi njëkk mooy faut que ñu euh, def li ñuy wax sensibilisation gën ko def ñun ñu impliqué aussi fexe xale yi dès le xale yu góor yi jigéen yi ñu xamal leen ku nekk àq ak yelleefu sa morom. beneen bi aussi ñu fexe ci biir askan bi aussi que répression mu nekk luy mun di am que bëri na luy am ñu di ko maslaa yenn saa yi moom mooy jur ay jéeya ci kanam donc jigéen ñi aussi ñu xamale ne jigéen dafa chair amul lu ëpp valeur jigéen si àdduna ñu fonk seen bopp ñu bañ a nangu kenn ku leen fooye bañ a nangu kenn ku leen caaxaane mais aussi ñu xam ne dañu war a jouer rôle bu am solo ci biir askan bi loolu nag ñu dinañ ci liggéey ci wàllu éducation tàmbale ko ci préscolaire ci élémentaire ci moyen secondaire ba bi ñuy gunge xale yi ba ñu dem ci njàng mi gën a kawee beneen bi ñi nga xam ne aussi dañuy jëm ci yeneen xeetu formation comme fii au niveau du centre nekk ci ay couture ak yooyu yëpp ci biir njàng mi ñuy jàng ñu dugalaale si li ñuy wax instruction civique ci ñu comportement fonk seen réew mais aussi bu dee dañ ci war a dugal yeneen domaine yoo xam ne tey daf leen di yee ci àdduna comme sociologie comme voilà psychosociologie yu demee noonu nga xam ne dafa nekk ay domaine yoo xamante ne tey nit ku nekk war na ci am ay notion ba yenn yu bëri yoo xam ne tey nit ñi dinañ ciy suux yow nga mun ko moytu beneen bi aussi ñu gën a ñaax xale yu góor yi donc pour ñu xam ne dañu war a fonk jigéen ñi ndax ñoom ñooy suñu yaay ñoom ñooy suñu jigéen ñoom ñooy suñu c'est grand honneur pour nous de recevoir cette importante euh, rencontre donc euh, organisée par euh, ABS de notre ami et frère le président Aliou Ndiaye et, et Sénégal. Donc une rencontre qui, qui, traite des questions liées aux violences faites aux femmes et aux filles et qui doit être euh, vraiment un problème central euh, par rapport à nos objectif de développement. Aujourd'hui, il ne peut y avoir de développement sans protection de la femme. Il ne peut y avoir de développement sans cadre de vie, sans cadre d'épanouissement des femmes. Parce que nous sommes convaincus que les femmes constituent les véritables moteurs du développement. Il est important par rapport à l'actualité même aujourd'hui où les femmes sont agressées, les femmes sont violées, les femmes sont tuées, que nous tous nous puissions nous impliquer en tant qu'autorité pour ensemble, pour qu'ensemble nous puissions euh, définir des stratégies, mais aussi mettre en place euh, des systèmes qui, qui pourront nous permettre de pouvoir créer les conditions d'une vie paisible, apaisée, mais aussi d'un épanouissement et d'une émancipation des, des femmes. une implication de toutes les autorités, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, donc, et en passant par l'éducation. Il est important que dans, dans la formation des jeunes, dès le, dès le bas âge, que l'on puisse intégrer certains modules, donc, euh, comme on le faisait de notre temps avec euh, l'instruction civique, et d'autres domaines qui vont nous permettre de développer notre amour pour la patrie, mais au-delà de, de, de, cela, de créer un véritable euh, comportement euh, civique au-delà de tout, mais aussi accompagner les personnes dans leur socialisation pour leur permettre de pouvoir comprendre certaines choses, donc euh, que la femme occupe une place particulière dans la société et que les femmes aussi ont le droit que nous tous, en tant qu'hommes, nous devons respecter, donc en, en mettant en place vraiment un, système qui pourra nous permettre d'accompagner ces, ces jeunes-là dès le bas âge, et surtout en passant par l'éducation, en passant par l'école.